leen ndokkale ci bés bu bés bu màgg bu tedd bi ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha xalif général des murit ak njabootu Serigne Touba yépp yëpp ñuy ñaan yàlla yàlla na ko fi yàlla yàggal wéral ko e, tey ñaanal mbooleem jullit yi ak fu ñu mën a nekk ci àddina rawatina ñi dëkkee réew mi di ci jiital ki nga xam ne mooy njiitu réew président de la république son excellence Macky Sall di ko gërëm di ci délégation bu mag bi nga xam ne bii saa su ne lu ñu xewle fii ci Masalikul Jinaan rawete na iit yi nga xam ni mooy ñaari bési jullit yu mag yi muy Korite teg Tabaski mu yebal fi délégation tey le ministre de l'agriculture di suñu mbokk taalibe bu min barab bi e, di Ali Nguy njaay mu ñëw ànd ak jëwri ñi mu àndaloon yëpp ñu ñëw teewee julli gi di <clears throat> nuru nag di sant bu baax suñu imaamu ratib bi nga xam ne mooy cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu cheikh Abdoul Qadir euh, ak cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ni moo fi nekk imaam ak imaam yi topp ci ñoom yëpp ak mboolem seen ñi nekk ci diwaan bi ak julli di ak mbokk taalibe yi di rafetlu di bég ci waxtaan wu am solo wi nga xam ni imaam am wax na ko fi nga xam ne ay soññ la ñun ñëpp soññ la ñu doon soññ <clears throat> ci ñi nga xamee ni bii mooy jikko ju rafet jikko ju rafet ak tamit nit ki ni nga xamee ni bii moom la war a mën a comporté woo ak mbokki doomu aadamaam rawatina mbokki jullitam ci jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ku nekk boo tolloo ci xat-xat wala nga toll ci yëg sa bopp muy li ñuy wax mer nga jaadi delloo sa xel ca la nga xam ni moom la yàlla wax ci alquran ak tamit la nga xam ni moom la yonent bi jàngale ci dundam ak na nga xamee ni bii moom la daan contenir meram loolu nag mooy li nga xam ni war na ku ne ndax àddina bi day àddina boo xam ne bii lépp nit ñi dañuy gën a bari yitte yi gën a bari soxla yi gën a bari bëgg-bëgg yi gën a bari joxalante yi ak jëfalante yi gën a bari ba nga xam ne bii képp koo xam ne bii yaroo ci sa jikkoo ba nga xamee ni bii lépp loo xam ne lii dikkal na la ci jóge ci sa mbokk doomu aadama jëm ci ci yow bu fekkee ni bii tamit jubut wala jubluwu la nga jëm a xool naka nga koy contenir ba ya ngeen mën a rafetal seen nekkaay loola defe naa ñëw na ci waxtaan fii ci réew mi ndax réew mi de réew moo xam ni réew mu spécial la muy Sénégal ki fi ne muy Serigne Touba bi ko yàlla tàmdalee fii ni ko fii ngay ñëw war nañoo jàpp ni réew mi kon réew moom moo xam ne mel na nu meneen réew melul loolu nag bu ñu yàlla defee wërsëg woowu defal ñu ko muy suñu wërsëg muy sëriñ bi war nañoo xam ni kon li ma sëñ Muntaxa wax barki demb rek ni ma senegal bi ñu amee sëriñ Tuubaa la seen xel war a dal ci lépp nag ci leen war a xala del te yàlla du leen fàtte mukk mukk ci lu ñu dunde akum koom-koom mu am fu ne dina am fii wëlbati ko tamit ni ma bi ko bi ñu yàlla baaxee Serigne Touba la ñu sañu xel war a dal xam ne fii jàmm rek a fi am ay nit nag bu ñu nekkee fokk ñu ni ñu ñu ñu ami réeroo waaye nii ko imaam waxee rek Cheikh Mouhamadul Moustapha ku ci nekk da ngay delloo sa xel sa bopp xam ni njaboot gi ñoo leen njaboote mhm. te réew mi euh, euh, euh, wax dëgg yàlla nii ko yàlla def muy ab jagle bu ñu yàlla jagleel ku ci ne ne am nga wàll woo ci war a mën a béy woo xam ne sa wàllu bopp rawate na nag njiit yi nga xam ni ñooy njiiti àddina yàlla jiital leen te nag njiit boo gis na nga jàpp ni jiitalul boppam yàlla moo ko jiital te yàlla kat ñu ki mu jiital mooy xam fa mu koy tàmbalee ak fa mu yem kon pexey doomu aadama ak pexey nit munu ci dara dara dara dara dara kon ñoo ngi delloo njàngale moomu ci suñu bopp bu ñu demee di ko nafar tey ñaan ku nekkit mu di ko déglu di ko nafar ndaxte njariñ rek la te lenn lor amu ci kon bon ñoo ngi ndokkeel ñëpp di gërëm ñëpp di sant tamit di ko sant bu wér tamit le président de la république ndax barab bii nga xam ne day barabu sëriñ Touba te ñun taalibe ku defal Serigne Touba taalibe yi la war a fay Cheikh Abdou Lahad moo ko waxoon ñoo ngi koy sant bu baax cant goo xam ne am na tàmbali mais amul yemuwaay di sant tamit mbooleem seen jëwriñam yi nga xam ne ku ci nekk yónnee nga fii teraanga rawatina ministre de l'intérieur Félix Antoine Diome ak sëñ Aly Ngouille ak Karim Fofana ak ñëpp daal ku lim da ngay juum ñi ko fi indi ñëpp te liggéeyal yàlla liggéeyal sëriñ Touba rek tax ñu def ko yàlla na leen yàlla nungul yàlla na leen sëriñ bi nungul ñu teewe ko at yu baree baree bare yàlla tappe xol yi jox xéewal réew mi bu baree baree baree baree baree jox tamit esprit de clairvoyance bu bu am solo ñi nga xam ne ñoo ko jiite ndaxte réew mi mel ni réew la moo xam ne bii et boo ko xoolee ci li ñu wër nga xam ne dañu mel ni un îlot de paix entouré de pays boo xam ne bu ci ne dara nga fa yëngu